Senclic yéen ñi abonné gul abonné gaaw ak activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf. asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi nga xamante ni yéen a safoo di seetaan seen seen wi di Senclic TV euh, ay xale jiite ko dara taxu leen jot nag mooy fësal li nga xamante ne nii mooy taaru Sénégal bu ñu nee taaru Sénégal nag. donc du ñu du ñu bàyyi ci diine du ñu bàyyi aada du ñu bàyyi cosaan waaye du ñu baada du ñu bàyyi li nga xamante ne aussi maam ñu bàyyi nañ ko fi muy suñu cosaan di cosaanu làmb tey ñu déplacé wu ñëw ba fii di euh, Thiaroye fekk fi champion bi nga xamante ne boo nee yi wax champion ci làmb rek xel yëpp dem ci moom muy Baye Mandione euh, muy nit ki nga xamante ne ni ku baax ku woyof nit ki nga xamante ne ni euh, signature contrat am rek jar na billet pass waxuma la sax jouru combat bi ndax nit la ko xamante ni dafay neexal làmb nit la ki nga xamante nii dafay bëggal amateurs yi nit la ko xam ne dafay bëggal téléspectateurs yi ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dund làmb Euh, tey nag dañu doxantu ñëw seet si ko dalal ko ci seen émission édition spéciale fa yéene waxtaan ak moom baay ma ñoom ku ne xam na jamono ji euh, ci réseaux sociaux yi xew na loolu waaye nag émission bi li ko wundu tey ci première partie bi mooy waxtaan ak moom ci ci ci ci retracé waat tuuti jaar-jaaru Baye Mandione ci ci ci door dooram fi mu tàmbalee fi mu ñëwee kan mooy Baye Mandione ak fu mu jógee donc loolu la ñu commencé waxtaan ak moom ci première partie bi deuxième partie bi nag ñoo ko ñëw ci ci làmb ji dëggantaan bi mu commencé euh, signe kase premier kase premier combat ba fi mu toll nga xam ne tey euh, référence la ci wàllu làmb xale yi dañ koy roy mag ñi dañ koy roy donc Baye ñu ngi lay sant di la gërëm ci émission bi nga xamante ne ni aussi euh, jagleel nga ñu ko parce que yombul champion bu toll yow ak jamono ji fii fi Sénégal toll nga xam ne ak mbas mi ak yitte yi xamante ne yaa ngi koy dox doo lu bëri mais li ñu facilité muy jotaay bi am nañ ci mbégte am nañ ci kontaan bu baax ñu ngi lay sant di la gërëm champion ci loolu. bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. waaw ginnaaw ba nu sant yàlla di julli si Seydina Mohamed alayhi salaatu maa ngi sant di gërëm samay ñaari waajur di la ñaanal yàlla sama borom dëkk leen saa jëndee kawe ak mboolem jullit di nekk amal xam yëpp di jullit. ma ñaan Sénégal yàlla sama borom wàcce fi jàmm wàcce fi xéewal wàcce ko yi diine yi kilifa yi aada président Macky Sall ak gouvernement am opposition bi ñëpp yàlla na yàlla sama borom jàmmal ñu ne ci prison yi yàlla na yàlla sama borom delloo si leen seen njaboot ñu ne ci hôpital moo xam ñu corona ak feebar bu mënta doon tëral lañ ci yi yàlla na yàlla sama borom génne delloo ci waa seen njaboot ci barke Seyna Mohamed may kontaan trop ba dëgg yàlla ci déplacement bi ngeen ñëw def ñëw seet sama caaro géej fii suma kër xam nga may kontaan si yow trop di kontaan sax Kébraman di wax rek wax dëgg yàlla yàlla na yàlla may émission bi jàmm ak boo xamante ni képp ko déglu la di nga si jëlee njariñ waaw amiin euh, Baye bi ñuy waxtaan ak yow euh, da ñu tegtal rek waaye bi ñu yegsee Potes Thiaroye yi. Mhm. dañu laajtee ñu ne def leen nii def leen nii def leen nii ce qui veut dire que liy wane ne. Mhm. Euh, Baye nitu nit ñi la. te bi ñu mhm. fi tettal ay xale yu ndaw lañu. loolu sa diggante ak nit ñi fii ci Thiaroye yi donc en tant que champion mbër yaa ngi bay sawaat ci côté boobu waaye bu ñu nee Baye Mandione tey. day xel yi dañuy wax lamb dañuy wax mbër parce que ci loolu lañ ko xamee te avant moo doon mbër ma Mandione lan la woon. waaw ba am joon de wax dëgg yàlla doomu caare la juddoo caare géej fi ngeen ma fekk yaroo fi màggee fi te ñun ay lébu lan te ku xam lébu ku nekk rek xam ne lébu bépp métier boo xam am na ko rek si géej mooy premier métier bu muy am bi yàlla demee nag yóbbu ko si géej gi yaa ngi dégg ba jamonoy dox ñu commencé ay mbappat di am ñu dem ci mbappat yi bëri xam nga ma jaar encore ci simb encore simb di am may def ci simb yi di simb fu nekk Sénégal si mi naa foofu avant ma ñëw làmb sama tur siw na mais làmb dama ñëw làmb gën a siwal sama tur ndax doomu aadama il faut que nga am ay jaar-jaar quoi boo nekkee xale waaw baa ma jëloon doomu caare rek mooy li ma la expliqué rek xam nga te caare dëkku champion wax dëgg yàlla suñu papa Baye Mour Dieng nañ foon treize ndiir papa kan ku ne dégg na ko moo njëkk a dégg roi des arènes ci Sénégal xam nga père papa kan waaw ak suñu Baye Mourou kan papa moom it xam nga parce que la jëy kii père xam nga ñoom papa Ablaye kebe ñoom papa Birima ñëpp maanaam ay champion yu mag ñu ne Thiaroye Gey ñoo xamante ni xam nga ay Père Ndongolaay ñoom ñëpp xam nga day champion yoo xamante ni tey ñoom ñoo xàll yoon wi ba suñuy euh, mag ñëw suñuy mag bi ñëwee moo ñoom Xaadim Ndiaye ñoom Ousmane Diop xam nga ñoom Massa Mbargane léegi que affaire yooyu quoi ñoom Mass Ndiaye bi ñu ñëw suma grand xuma mu ngi Espagne maa koy nuyu après ñun xale yi nag ñu doog a ñëw topp si ñoom Xaadim Ndiaye xam di dem gis ñoom di entraînement ba yàlla euh, jox na ay combat ci làmb yi ñu am ci tur quoi di ko sant yàlla bu baax a baax nag. kon Baye Mandione mën nañu wax ne daal làmb du lu mu doon. non làmb kay instant bi caare yi mbir muy ci euh, tafasu caare yi ak bépp dëkkule bu boo dem benn mbër bu fay bëri di wax ne diw moomu jàngal ba am amul ndax ñun dañuy judd rek nekk ci tafas gi mu mbaala jee ba teer dañuy bëre di foo xam nga xale ñun sunu suñu foo bëri la woon waa tafas gi la ñuy nekk rek bu ñu mbaalee ba teer ku ne am fanweer wala ku ne cent franc ñu ne ci tefes gi bëre wala ñu jënd mbiskit teg def tournoi ci mbiskit yi teg te def tournoi bëre ci tefes gi affaire yooyu quoi ba tey ni yàlla dogale tey ñu dem ci lamb ci tey ba am ci tur ba duna xam ni noonu la fa demee. Hmm. bëgg nañu aussi tamit xam mooy euh, kañ nga jàpp ni Baye Mandione mii kat taxaw mi war na nekk mbër. waa sama combat ak dama bëri dama bëri sama premier combat ak Cheikh Ngiraan yàlla may ma ci boobu sama yaay dafa ma doon bëri sama papa ne fi dafa tukki woon. mère na nag bëggul woon ma bëri ndax sama mag bu ñuy wax laay sigaar moo doon bëri ñoo mu nga Espagne maa ngi koy nuyu waaw moom mu nga euh, ñëw ak Pa Yéri naka bàyyi ma joon mi war a bàyyi mu bëri kii mooy mbër mi ndax sama magam ji bëri kii yoru xasa na bëri ab yaaram la affaire dafa yaru affaire yu quoi naka bàyyi ma moo war a bëri ñu nekk ci négocier maire bi bañ négocier négocier maire bi bañ ba benn jour ak Pa Yéri oo ma ndeysaan jox ma xaalis ne ma demal fataw ñeenti fataw ma fataw dem defar licence tegul si ñetti fan mu ñëw indi fi avance na ma sëñ Modou Niang ma bëgg sa combat ak ku ñuy wax Cheikh Ngiraan ba wax ma ku Cheikh Ngiraan sax uh-huh. ma ne ko Paa Yéri maintenant ma ne ko dimbali ma la nga wax ak maire bi quoi maire bi léegi d'accord agul de mais wax leen ak moom uh-huh. ci la Paa Yéri ñëwee ñu toog salle bi wax ak maire bi di wax ak moom di wax ak moom xam ma uh-huh. ba maire bi daan léegi garaawul léegi bëree combat bi pare mu bàyyi ñu ne ko waaw Paa Yéri yëkkati combat bi euh, trente mille la ma fayoon Paa Yéri ma quinze mille francs yaa ngi dégg non ndax waa CNG dañ ca jëloon euh, les mille sax assurance non assurance waaw dañ ko si jël ci ci quinze mille yi war a jël dix pour cent encore da ci des ma ne ko jox ko sama yaay bàyyi na ma ah koy préparé ma ne joxal sama yaay moom moom mooy sama sëriñ su ma ñaanalee rek lépp ba incha allah quoi jox ko xaalis bi yëpp mu joxee maire bi euh, xaalis bi ñu yëkkati mille francs tekk sama loxo ndax xale boo gis am na ay mbooloo yu muy àndal ñu fréquente quoi ma jël 1000 francs yooyu dem bitig ba gën war ngaa suukar yu bëree bëri ñëw jox sama gars yi ne gars yi kat dama jox combat dimanche quoi après bàyyi moo ñëwoon une avance bi mm-hmm. waaw mais caayan baa ngi ñu naa tay la fa demee quoi mm-hmm. dem yàlla si ndam mm-hmm. maamaat combat ma Pape Sène ni ñu wati waral baab maire bi encore ndeysaan ñu topp ci di wax topp ci di wax maire bi dëgëral affaire bi trop waaw dëgëral waaw dëgëral gu méttee métti sax ñu nekk ci di wax waaye jour boobu kay ku ma xam ku ne woo naa la nga ñëw ba baab maire bi jour boobu nii ndeysaan mu ne benn combat lan waxoon benn ko na daan jeex na ñu du bëri affaire yooyu quoi bul dara tur yooyu affaire yooyu te sama doom la xale la mais daf ma yërëm dafa am lu sama diggante moom dafa am yërmande ci man xam nga te boo gisee ma doon simbi yooyu yëpp xam nga dem ay mbappat def ay tournoi yëpp dama doon yàkkamti am alal xaalis ba ñëw dimbali suma waajur man loolu doon royante ndax man jamono yi may simb sama yaay non sama yaay la doon mer billaahi dama doon làqatu jërëjëf di gis mbaay mënoon simbi daa ma ko ni si kër dama koy yóbbu sama kër copain yi nii mën naa simbi ci àll bi def fa semaine wala six jours mais su ma ñëwee damay sàkkatu dama ñëw jox ko xaalis mu ne foo jógee nii mu ne ko man dafa am fu ma dama doon a mën a damaa demoon mën a fekk boobu maa simbi si nëbbatu xam moo wax dëgg yàlla nag muy waajur woo xamante ni yàlla na ko yàlla sama borom dafay lay leer yaay ju mat yaay la wax dëgg yàlla xam nga yàlla dogal na ay doom yi mu jur yëpp kenn amu ci problème ñu ñëpp ci bokk am xam nga koo ci xool xool bu nice la yor te loolu ñu ngi ko ñu ko jàngee ci moom ba pare encore koo ci xool ko jàngee si moom parce que boo juree sa doom sa doom day xool ci yow li muy xool ci yow mooy lan surtout jikko boo yor rek bu màggee moom la yor mais mère bi gàttoon na tànk yaa ngi dégg dugul suñu yoram ne billaahi wallaahi taala bi mu génnee àdduna yaa ngi dégg de ba ñu yóbbu ko Yoff Layeen rob ko ci seen aliment ba pare bi ñu ñibbisee dafa am benn xaritam bu ñu wax Yaakin Fall dama doon gis moom maire boobu maire bi di ko seet seet ñoom ñaar ma gis man nag ma ne comme ñoom ay partenaire lan ma dem si maire boobu ne ko Yaakin na mu naa man dama dama lay laaj ndax sama yaay ameelu la dara benn bor ak koo xam sama yaay ameel bor fii mu ne moom man sa yaay koy ameelu kenn bor loolu maire bi wax amul kenn ku ñëw ne maire ba ñu ameel cent franc xam nga dèjà loolu mu lay jàngal àdduna nii mu wër su koñ bi ku képp ku amel sama yaay xaalis mm-hmm. non képp koo xam ne sama yaay amel la xaalis da nga ñëw ma fay la mm-hmm. ku ma wax su ko ñu ñëw amel ñu dara mm-hmm. maanaam la ku amel nag jëlal ñu may la affaire yi quoi xam nga muy loo xamante ni wax dëgg yàlla lu ma marqué la suma carrière quoi xam nga tey débuté carrière xam nga sa yaay bëggul nga bëree ndax ñeewantal ndax mbëggeel gu mu am si yow quoi dafa xaw a metti waaw dafa xaw a metti quoi wax dëgg yàlla waaw xam nga yaay dafa dafa jege doom si turó te boobu sama papa mu ngi ci tukki yi xam nga di voyage fu ne ci àdduna sama papa dem na foofu mel bi ne fi xam nga yaa bëgg na xam quoi il faut que màgg taxaw ko. da ci am solo quoi. Ah. donc tey Baye Mandione suñ la xoolee ci résumé euh, ñu ngi koy ñaanal jàmm moom suñu yaay booy boobu. amiin euh, li ñuy Baye Mandione mel tey Sénégal wala àdduna bi ci aada ci diine ci cosaan. buñ nee boo buñ nee buñ nee doom ji baax na rek ñu ne ndey jaa baax. Mhm, mhm. te Baye Mandione ku ko xool ci Sénégal nga xam ne nit ku baax la nit ku woyof la nit ku jàpp mer la. feeñ na ba ci ay combat ci ay adversaire mais tey bàyyi mhm. euh, sa sa làmb ku ko wax wax lëlu mhm. wax làmb secret ndax mhm. làmb dafa làmbook secret tey euh, sa sa sa sa sa àndandoo ñi nga daan àndal démb ba tey est ñoom ngay àndal waaw wax dëgg yàlla nag am na ñu àndal démb am nañu am na ñoo xam ne ñoom ba tey ñu ngi ànd mais am na si ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ànd àndatuma man man du ma fen nag damay jaar digg laa jaar de <laughs> ndax tey ñi may seetaan duñ jar ma wax lu dëgg ndax yàlla nga ma tiim ku des sa bàmmeel am na ñu la àndal ñu bari ñoo xamante ni wax dëgg yàlla dana ànd ak ñoom mm-hmm. débuté loo ci ci mbapat mm-hmm. ba ma commencé bëre grand combat mm-hmm. yaa ngi dégg jamono ñëw rek waaw ñu jaar beneen yoon ma jaar beneen yoon ndax ay nit ñuy ànd ñu nekk rek naan ñu bokkatee ñu laxasee goj mais am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla ba nii may waxee yow ñooy ak man ndax ànd dafa dafa gudd tànk xam nga dafa gudd tànk tey xam nga tey dañuy àndamaa yow te dëkku lébu dafa doy waar lébu dafa garaaw yaa nga dëkk ci milieu lébu boo xamante ni daanaka xale bi daal dafa màgg léegi suñu kanam yaa ngi dégg tekki fi bàyyi ñu fi ñuy toog quoi boo ko defee après xoolu ñaan day ñëw te dama dama yaakaar ne ni doomu aadama lépp lu mel la yàlla suñu borom moo ko def mm-hmm. xam nga mm-hmm. tey nga ne xale bu ndaw danga ànd ak say morom tey mm-hmm. yaa ngi dégg yàlla sippile ci seen biir jox la tur ba àdduna yëpp xam kuy bàyyi ma njoon loolu yow yow yow xaritam bi nga xam ni dana ànd ak Baye Mandione dem boo xoolee ci Baye Mandione mi ñu xool tey jii àdduna xam nañ Baye Mandione na rek boo nekkul góor yàlla dëgg da am da ngay am da ngay benn benn zolo benn benn lii dama ko gis ñu bari ñu moo àndal man mm-hmm. ñu baree bari ñu moo àndal boo ko ci gis waaw dama doon jaral sax su ma jotee avance nii wallaahi ñi may àndal nii mm-hmm. balaa ma cee lekk non mais nag ma jotee avance man dama ñëw si kër gi tekk yaa ngi dégg jox ko sama yaay dama sama papa mu ngi ma jox ko sama yaay naka yaay man dama am combat maa jiw jox ko xaalis bi quoi temps ma commencé fekk ay millions laa lay wax de nekk na xaalis baa ngoogu yaa ma moom yaaka moom xoolal lu la neex nga jël si waaw. mu hmm? ne ah, waaw ma rek ma nekk déedéet yaay lii xoolal yaa ma jur yaa ma moom yaa moom millions yi xoolal lu la neex nga jël si xoolal jëlal lu la neex ma ne mu ne du ma ko def xool loo ma jox ma ne ko ma ne ko kon def la ñuy finalement yow ndax man du ma def loolu waaw ma ne ko yaay du fa la ñuy finalement yow de man du ma taxaw naa laan ay jëlal temps jëlal temps yow bu bi ñëw ma nii la la jël jëlal boo defee maire bi bañ rek sama mag mag ne nii génne benn un million wala benn deux millions nekk ah, nii mais bu loolu amee pare damay profité sama nit ñi may àndal man ndax combat xaalisu mbër dafa garaaw bu la joxee avance dañuy xëy def ko sol journal bi ba ma joon avance bu diw bu ñu xëyee rajo rajo yi di ko revue de presse ba kër ba suba ga xëyaat yéen di ci waat di ko fekkee yow nga boo ko lekkee rek doo gor yaa ngi dégg damay profité oo ñu muy àndal ñëpp tuuti gars yi kat eh suma ménager ñëw na fi quoi mën na la wax fan yi koo fi taxaw na jox ma avance quoi xaalis mu sama yaay affaire yooyu xam kenn la ko na ma defal enveloppe jàppal jàppal jàppal jàppal mais ci biir enveloppe bi may defal sax di ko jox di ko yi kenn ku nekk yenn sa nit ñëw ba ci man na ma nii waa diw loo ko jox ma ne ko waa sa waay bàyyi yooyu ñu ànd ñoo bokkoon rek bàyyi xoolal yow zéro sa enveloppe rek bàyyi noonu bu kooku ñëwee ci man lay wan ne ànd dafa war a sincère dafa war a dëggu yenn saa kenn ñëw ci man defaat ni kooku def na waa booy diw loo ko jo man leen miin pourquoi man ma joxaaj kenn ku ne enveloppe laa la jox nag kenn ku ne téye chef quoi mais boo ma defee damay damay damay damay jaxasoo jox leen du pare kenn ku ñëw naa ma dañoo di dugg jaxada yooyu nangam dama góoma te yàlla tax yaa ngi dëgg mais tey yu mel noonu boo ko tegee bët mbër yàgg-yàgg jamono day dox da nga koy bàyyi ndax xam noo koy bàyyee da ngay bëgg yow moom buñ ko fay ay millions yu teg millions yi yow nga ñëw toog di ko gis nii nga yaakaar ne yow bu bu bu ménagère am demee ma day yëkkat ay millions ne la demewul noonu man dërëm bu ma am barku rasulillahi li ma bëri ci ay combat yëpp yëpp li doomu adama yi lekk ma ma bëri lekk ma ko sama ah, sama sama carrière laa la ma ci feeku ci ay millions laa la wax li doomu aadama yi lekk jam yàlla yi man mi doon bëri def neen lekku ma ko ci sama famille sax lekkuñu ko ci barku rasulillahi may jox ay millions teg fii balaa mbat un mois jeex nit ñi nay def du koy génn nii nii nii mu ñëw waa kër gi wax naa waaye yow du du foo laaxatu yàlla tere du ma ko def jam yàlla yi ñëw yaa ngi dégg di jóge ba taliba di jóge ay mbuur ay Fatick lax fu ne ñu jóge fa di laajte kër Baye Mandione ñooñu koy jóge poste ñu ngi koy tegtal ñu rombay kër di rombi kër di rombi kër ba ñëw si kër gi wax ma seen xanaa ñu bañ ko fay fekk de mais bu doon cent franc wala mille franc wallahi yàlla may na ma xolam ma jël ko jox leen dem ndax yaakaar dafa fort waaw yaakaar dafa fort ak yëg dafa fort ni ku déplacé wu romb këram ñëw ba si yow ah ne la góor yàlla kat man de maa ngi ba Fatick ah problème bii la moon bi ak bii bu la yàlla wërsëgalee jox ko wàññiwu la dara billaahi li nga koy jox noonu mu dem wàññiwu la dara wala benn doomu aadama ñëw ñëw ah sëñ bi kat dama am xat sama doom dafa feebar wala sama soxna nangam ak nangam génne benn ordonnance nii xam nga bul xool sax man du ma xool ordonnance comme nekk di xool ma jëlee ordonnance bi xool day man li yow nga wax dama laa la sooy garaawul géral ma ne ko bil génn ay bil génn wax ma ñaata la nga bëgg rek mu a ma temps ma dugg si biir génn jox ko nag am yàlla na yàlla teg seen jàmm wala ma ne añ jooju ma toogal xaarañ bil dem toogal ñu añ après nga doog a dem fu mu fa jógee dafa sori ñu toog añandoo après nga dem te donc bis boobu laa lay doog a gis kon adduna li ci ëpp solo ci adduna mooy social damay wax ni Sénégal tey bari na ay borom alal trop mais ñu yorul dara moo gën a bari ndax pourquoi man damay nekk milliardaire xaritu milliardaire laay am man nekk millionnaire xaritu millionnaire laay am man mi nga xam te yoruma dara damay naan ataaya lewal deuxième troisième yaa ngi dégg de teg gerte caaf man ak ñi naan ataaya ñoo maanaam sama partenaire yi nga xam ne maanaam misaal laa joxe quoi waaw ñun suñu niveau niveau boobu ñu toll ñun ñoo fa di jee loolu mm. mais fekkoon tey ñi am mm. yàlla daf daf dafa dogal nga am ay milliards mm. yaa ngi dégg de nga jël néew doole yi nga xamante ne amuñu amuñu di leen jàppale keneen def noonu keneen def loolu bu yàggee kenn du am problème mu xaalis mais tey da ngay ànd ak ni am alal sax yaa ngi dégg de ne ma diw may ànd ak yorul dara damay sonal rek quoi parce que don am na xaalis bu def de dañuy ànd ak koo xam te ne yorul xalaat yorul dara ndax te ñoom ñoo début dañoo nekk xale mm-hmm. ñu xëy na ne non ci dafa sonalati quoi dañ ñëw fi dina lay problème quoi moom ay temps booy li fee ni te yooyu na léegi man kilifa laa nanga bëgg imposer lu amul yaa ngi dégg te adduna du noonu ñi am na gestu ñi nga xamante ne amuñu ndax xam nga moo gën a garaaw aduna mm-hmm. kenn ku nekk da ngay xool sa bopp sa bopp rek ci sa sa morom adduna oyof ci yow mm-hmm. boo xoolee yow yow jàmm bi da ngay añ day jot nga añ yow ki yoru dara añ day jot mu añ yow milliardaire bi boo xëyee ndekkee junniy ginaar man baa ma ñun xëy ndekkee tàngal sama tàngal boobu ma ndekkee su ma waxul ni tàngalaa ndekkee gënoo ma ndekkee yow te doo xam lu ma ndekkee bu baax a baax li ma jaar naa si am na ma suuf sama benn xarit bu ñuy wax Babatal dama day moom géej ba génn ñaari tàngal wax yàgg ma ba ñaari tàngal sama poos tàngal ji sax moo tax sama xel ñëw si jox ko benn mu ne mu wax waaye su bëccëg li nga ma ci tàngal ma ne ko booy xamal laa la ñaar de tey de cent franc yeewu ma ko te xam naa ne tool bi añ bi nii deux wala mi dee demi affaire yooyu ma ne ko man ma ne ko tàngal bi sama ndékki de rek mu ne ma nii waaw jox ma benn ma ndékki man tamit ma jox ko benn tàngal ñu xool yi affaire damay kontaan ndax day tax boo liggéey yow lu ñëw si yow bu donc da nga ay milliards wala millions yu bari doo rëy xam nga jaay yoo xam boo si bu la yàlla may doo rëy ndax ku ci mel suñu papa suma papa laay wax tey Ould Sarr mhm. ndeysaan damay toog këram déglu ay discours am muy waxtaan mhm. moo tax àdduna billaahi wallaahi tallaahi mhm. koo fi dégg ñu naan dafay day dimbali waate rek xamal ni jaar na ci parcours bu méttee méttee métti ndax yow bu am na yoo am na jaar-jaar yoo xam boo fa jaaree par force da nga doomu aadama yi man ma xam man ma toog xëy yoruma dépasse yaa ngi dégg sama njaboot wër ma aw ma lu ma leen jox yaakaaruma ko fet ma toog singéem yaa ngi dégg de ma xëy feebar aw ma lu ma demee hôpital ndax man yoruma dara yaa ngi dégg sëgéem naa waa léegi kon bis bu ñëwee bàyyi ma yoon yàlla teggi la coono yooyu yëpp jox la wërsëg nga yor wërsëg bi yow war ngaa xalaat ne man de niveau bu ma toll woon daan toog daan am problème de dépasse tey am nañu toll foofu kon naa gestu ñooñu nga ne niveau bu ma toll woon daan toog yaa ngi dégg de sama yaram daan maanaam ma daan feebar du ma am lu ma fajoo wala du ma mën a dem dispensaire parce que ma demee hôpital du ma am du ma bindee ordonnance du ma ko mën a fay du ma am sa lu ma génnee ticket mm-hmm. yow mi yor xaalis nga wéet bu jàppal ni coono yooyu daloon na la yow kon nag bu yàlla dogalee nag taw feex ñëw nga ah, am yàlla ubbi la xéewal yi mm-hmm. li la yàlla wërsëgal boole kaa doomu aadama yi mm-hmm. ndax seenaa Muhammad mbokk alayhi salaatu wasalaam nee na wërsëg doomu aadama fii ci mbaggam fii fii la la nekk mbagganu yor bi nee na bu jaam yàlla ñëwee nga wàccee ko jox ko nee na xool bu wàccee rek yàlla yàlla mais fekkee da nga faa téye noonu rek yaa ngi dégg doo ko wàccee yàlla daf lay sitaan seen Muhammad ne am nay du dugg àjjana moo ko wax de yàlla sax wax na que am nay dugg àjjana kon ñu yor ñu yor alal nan geesu néew doole yi ma wax na président Macky Sall moom mi nga xamante ni moom mooy président tous les Sénégalais yaa ngi dégg damay wax sama émission yi ba damay liir bu juddu tey sax ñu tudd ko président Macky Sall mooy président am nag geesu askanu Sénégal gën na am yërmande si ndax ndax ku naan ku njëkk yuuxu da ngaa ragal neexul ba neexul de mais dëkk bi dafa metti wallahi dafa metti trop trop trop dërë gën la metti bëggam jëmm a nga yeewu njaboot gi wër la mu wër la tey doo ndékki say doom du ndékki lu gën a metti loolu dafa metti metti na de wallahi nga gis ay ay ay yaay yoo xamante dañuy xëy doom yi wër leen lu jël benn cin def ci ndox daal ut ay mat teg si teg si cin di bàyyi ko noonu muy baax bu ko defee doom yi seen xel jàpp ne kat ah tey am na añ suñu yaay mu ngi toog gañ tey moom dinañ añ affaire yooyu quoi te loolu senegal al bu naa fekk yu dépassé loolu mais ba léegi mu ngi fi am ba léegi am na ay kër yoo xamante ni wallaahi heure añ day jot nga dugg fa doo gis cin dañuy mobiliser sax comme ça góor yàlla yi fa nekk dañuy tasaaroo si dem sa kër ko may diw ko foofu sa yaay benn sa yaay magam yu nekk benn bool wala yow jigéen ba fay sëy yaay mu nekk benn bool bool moom ñu ko yónnee bi di añee am na Sénégal te ñun niveau bu ñu toll Sénégal war na dépassé foofu président Abdoulaye yàlla na ko yàlla son borom sàmm yàlla defal ko gudda fan bu ànd ak gërëm yàlla may ko at yoon yàlla nooyin mu dund junni at wax dëgg yàlla ndax day président boo xam ne ñu waa Sénégal dañ cee yéex a jot da dafa dem ba nekk kilifa doon mag doog a nekk président mais méthode bi Ablaye doon liggéey suñu président Ablaye de commencement commencement dafa ñëw bi defar tali yi commencé def ay nekk nekk xam nga dëkk bi ne xaalis bi circulé normal xam nga la waaye dëgg la day fekk ko amul dara man seen naa benn ministre hmm. mu ne bu ñuy Ablaye de yor woon cent francs Abdoulaye Wade moo tax mu am xaalis di dimbali ku nekk xam nga kon Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may yaa ngi dégg mu dund ay téeméeri téeméeri junni junni at xam ma li ma wax nag jubluwuma ci dara ndax président Macky Sall tey jii mën naa wax ni mag la du mag ba Abdoulaye da di jël nguur as mu amoon président Macky Sall jëlee ko nguur Macky Sall dafa jëlee nguur si digg dooleem kon nag ginaaw ba dafa jël nguur si digg dooleem nag gesu askanam donc nag waxuma liggéeyul de mu ngi liggéey président Macky mu ngi liggéey. mais ñi nga xamante ni ñooy ay branchement muy ministres yi xam nga maanaam ak député yi ak maire yi nga xam ñoo ne si koñ yi nan na jël xaalis bi circulé ñu koy dugal ci biir askan wi nan jël ndimbal di ko dugal ci biir askan wi. mais tey koñ noo dafa am. Ah mais da du dund dëkk si koñ yow yow da ngay ne si benn koñ mu metti ah bay metti barko rasul lay ah mais tey jii tey yow war naa metti sax yow mi nga xamante ni si koñ bi nga juddoo mm-hmm. man ma nekk maire si koñ bi tey mm-hmm. war naa jékki sax. waxuma leen may fayda ma jël ci sama alalu bopp man déplacé wu dem jënd ay camion yooyu ceeb yu bëree bëree bëri. ñëw askan bi. ñëw ah. bàyyi ba guddi nag guddi mm-hmm. ndax ma li ma gëm ki boo koy jàppalee. si mm-hmm. wàllu jox da nga jox guddi. Mm-hmm. waaw bàyyil ba guddi nga déplacé wu. am ñoo yéen bil dem. demal kër diw joxal ma ko lii teg ci enveloppe demal kër diw ndax boo xoolee maire gox yi ñuy jiite bariwul xoola caare yi rëyul. Ah caare mu ngi commencé fan kaver jeexe caare jur kon àggu sax petit mbaaw ah. kon dëkk bu neex a defar la mais yi na meloon ca maamu njëkkee ba léegi noonu la mel dara changé wu fi pourquoi le président gestu sunu maire yi nga xam ñoo ne si koñ yi yaa ngi dégg xool Abdoulaye Diop maire ginnaaw raay lu ne mu ngi koy def pour ginnaaw raay mel comme Dakar donc fii dakaar Dakar la quoi maanaam misaal laa joxe ko waaw te ginnaaw raay instant boo fa jugee xam duggee ginnaaw raay bu njëkk bu léegi changé na ndax liggéey na fa mais Thiaroye ñun ba léegi dara avancé gul xaw ma sunu maire Ndiaga Niang mu ngi fi yàlla ko yàlla sama borom jàppale moom soxnaam ak xam nga mais bu fekkee ne affaire dafa kale ci kaw nañ si ci kaw nañ ko jox xaalis bu defar dëkk bi caare instant bi dafa laaj defar sonn nañ trop vraiment billaahi nañ dimbali askan wi quoi jàmbaar dëgg la dégg message bu fort bi nga xamante ne nii moom kenn la Baye Mandione euh, li may faral di wax tuuti la nit la ki nga xam ne tey xayma jëmmam nituwaayam ak ñeent yi may bëgg a lim xaalis kànjar wurus or jama danga naan jama la ndax nit la yërmandem euh, weesu na sax ci ci ci xool nit rek yëkkati poosam yëpp jox ko tey li koy firndeel fii la juddoo ci kër gi fii la yaroo fii la màggee champion bu toll nii takkusaan bu ne am na ko ci làmb waaye ba tey mm. mu ngi ci kër gi saay boo ñëwee fii nga koy fekk musul tukki mm. musul dem fenn ñam daan àndal ci kër gi boo ñëwee nam meloon noonu la mel ba léegi te loolu fës na ci combat yi fës na sax ci ay adversaire mm-hmm. donc te jafe na nit ku mel noonu donc président Macky Sall message yi nga xamante ne nii euh, champion bi lancé na ko mm. ñu ngi ñaan euh, nga nga jublu askan bi yaa ngi yaa ngi comme ni mu ko waxee. xam nga doguma la ay priorité. Mhm. ci askan bi mhm. nit ñaa ngi sonn nit ñaa ngi xiif. xale yi mhm. manque nañu liggéey. billaahi donc jàppale leen donc ñu ñëw ci secteur lamb bi am na loo bëggoon wax tuuti. waaw parce que fa bëggoon waxee mooy euh, suñu président Abdou Diouf. dégg naa dafa bi ka parce su Papa Abdoulaye da gagné. dafa wàcc. dégg naa bi mu wàccee lay doog a xam ne dañuy mbuus sunguf mais du ko jaay. dégg naa bi Abdou Diouf mu wàccee lay doog a xam ni suukar da koy jaay détail pour moom jaay taay amul Sénégal. kon dèjà ñu nekkoon ak moom jege ko lool daawoon ko wax vérité bi nekk ci biir askan wi quoi ci terrain bi non mm-hmm. looloo gën a rey mu Abdoulaye Abdoulaye dañoo yàlla may ko ndam jox ko Sénégal Abdou Diouf bi mu wàccee lay doo nga xam réalité yu bëri yoo xam te ne Sénégal da nga ko dund te moom xam xamu ci woon dara mais man bu ma juddoo ba léegi xam naa ne meew da nga koy mbuus di ko di ko jaay ah xam naa dañuy dajji benn paquet suukar di jël suukar di ko jaay ñett yu dërëm ñett yu juróom nangam ak nangam ah mais moom en tant que président def ci ci ci Sénégal xaw ñaata quarante bi taxaw bari na de ah. Abdou Diouf ndax fekkoo ma lu bareem nag ndeysaan ndax boo nekkee xale am na yoo doo ko mën a fàttaliku day ci Abdoulaye moom mën naa wax fàttaliku ci moom lu bari ndax barki de moo commencement am mais tey li may ne xale ne xale tey jii fàttaliku naa yu baree baree baree bari mm-hmm. kilo mburu muy dagg si digg bi jaay lii ba jaay lii mm-hmm. moom mu wàcc daan ne moom xamu ci woon dara kon na ñi koy jigéen ñoo ko daawuloo affaire bi kon nag président Macky loolu waru ko dal mhm. ñi koy jigéen dañ ko jàppale te yàlla tax ñi koy jigéen dañ ko accompagner mhm. ndax buñ ko accompagner boo liggéey lu bëgg mhm. sonn loolu naay sul vraiment loolu amoon lu may jàllale si ñoom quoi champion léegi dañuy dugg ci ci actualité lamb bi donc def nañu at ak ñetti weer ak lu ko teg wala ñeent euh, làmb baa ngi tëju te ku wax làmb wax hmm. mbër ku wax mbër yi wax yéen champion yi donc ak Covid bi. Hmm. jamono ji naka ngeen koy dundee. waaw mais di sant yàlla bu baax a baax rek tax euh, ñu wax dëgg yàlla ñun mbër yi ay doomi Sénégal lañ fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yoroo te wax dëgg yàlla suñu succès Sénégal lañ ko amee fu waay tur nañu oo la diw mu uyu Sénégal nga amee loolu. Balla Gaye sewul France sewul hmm. yaa ngi dëgg Sénégal gi moo tax xam ko. Tapha Tine si yow si ma si wóol France si wóol Amérique Sénégal moo tax ñu xam ko kon nag ñu bëri noonu bokk ci askanu senegal yaa ngi dégg ndax dangay xool te sport yi bari na ci Sénégal mais mais làmb mooy suñu sport national boo xam te ni jéggaanewuñ ko fenn ak rawante gàll jéggaanewuñ ko fenn ci àdduna mais sport yu bari ñu ngi koy def ci tubaab lañ ko jëlee xam nga kon sport bu nekk sport national donc nag feebar dugg na Sénégal dugg ci àdduna bi muy coronavirus mais tey président bi dem ba ne na na nan euh, maanaam feebar baa ngi fii waaye nañ nan nan respecté mesures yi nan respecté mesures yi jàkkaarloo feebar bi di liggéeyi mais teewul nañ bàyyi xel ci feebar bi wax na dëgg mais ci biir loolu du ma wax ay musiciens du ma wax ay nangam ak nangam ay doomu aadama yi dëkk si dëkk bi ñaxtu nan ci si li liggéey ñoom président woo leen yëkkati ab benn somme bu dëgër jox leen ñoom ñoo xam nu koy gérer ñoom yaa ngi dégg ñeneen ak ñeneen ñaxtu bu demee noonu mais ñun bëri def nañ xoolal booy ñaa woote na Pikine ñoo fa nekkandoo yaa ngi dëgg de bi Boy Niang wootee Pikine quinze jours lañ ci teg samedi bi ci topp Balla Gaye woote Sekatia Almadies ah. bi Balla Gaye woote Sekatia ñu dawal trois jours quinze jours Lamine Samba woote jongante euh, Pikine encore ñu uyu ji encore quatrième fois bi euh, Modou Lo dem TFM Eumeu Sène Balla Gaye Tapha Tine Boy Niang encore pour kaasi loolu yaa ngi dëgg Gris Bordeaux pour parce pour kaasi noonu yaa ngi dëgg man mi wax ak yow ñaata interview la ma nit ñi seet fii si kër gi dama laaj ci loolu te ba léegi président réagirul xam nga boo xoolee tey mbëri ku ci dëkk micro mu ne Matar Ba suma xarit la Matar Ba Matar la sport bi la fi nekkal fi làmb donc ñu ngi koy jël di ay làmb mhm. te yaakaar naa boo nekkee ci mbir ñu lay téye di la giñ dara Matar Ba fu mu a ah kii la waay mais sa ànd ak mbëri moment bii la ko a sentir si yow Matar Ba si ànd ak mbëri Ba ñun ñu sentir ni Matar Ba mii ñun la andal donc nag ñëpp la seen soor quoi xam mais tey mbër moo ci gis Matar Ba suma xarit la suma xarit suma xarit mais sa xarit am na yoo xam doo ko mën a wax waaw mën na kaa wax dëgg nag mais dëgg pire bu mu jot ba yëg ni tay bi di wax na ko dëgg doo a wax sa dëgg ñu wax lii di ñi nga xamante ni Matar Ba seen i partenaire lañ ñëpp dëgg ñu ko Matar Ba ko war dañu am diggante ñoom man mi waxee benn laa mos a gis Matar Ba sama dund benn yoon kese jaxaran nii li ci des tale laa koy gis benn yoon ministre Moustapha Diop maa ngi koy nuyu moo doon def benn affaire euh, stade Pikine invité ma ma déplacé wu ñëw foofu laa gisee Matar Ba ma nuyu ko mu nuyu ma sa na nga def baam ko mu nekk sa dem ba dem mais bu ko weesoo télé bi laa di ko gis xam nga kon nag ginnaaw da nga koy giñ làmb na toog président Macky Sall wax ak moom xam nga ñun ay doomu aadama lañ ci dëkk bi leen dëkk li muy def di ko defal ñeneen ñi artistes yeeg ñëpp naka defal mbëri mais boo waxee man balaa maa de xam nga tax mbëri kenn di leen jàppale danaan sport individuel la ndax mbër mi bu fayee ko xaalisam moo koy jël yóbbu si njabootam gérer ak moom du loo xamante ni état état maanaam xaalisu mbër day dugg ci état ankay da ciy dugg pourquoi da ciy dugg mais stade bi état moom moom moo ko tabax stade su làmb moo ko tabax mu ne mu ne mbëri nañ ko may mais may boo xamante ne yow promoteur yaay bëgg a mais boo may ni dara kay ba pare da nga koy accompagner maa ngi doon stade yaa ngi dégg promoteur yi bëgg a tëgg combat mais day benn promoteur waaye surtout stade bi dafa seetlu ñu teg si ñu teg wala nga tëgg nga joxe un million loolu am may la loolu xoolal les arabes bi ñaata promoteur ñoo ci tëgg kenn ku ne un million un million ñaata la ci xaalis te loolu ci ci ci keesu CNG lay dem xaw ma CNG la koy jox ah, ministre bi xaw ma nu muy demee noonu nag xaw ma dañu la bu boo xoolee action yi xam ne lii du may dan la nan la nga fay defaral boo du boo duggee fay boo génnee sa morom dugg fay lan ñu defal ci stade bu bees bi xam nga ban pour man nag bu président defaree stade daf ñoo war a accompagner accompagner promoteurs yi ci wàllu sponsor usine yaa ngi Sénégal du jeex promoteur war ñoo dem de jéggaani faneen ay sponsor état na dugal loo xam ci làmb ji yaa ngi dégg jël sponsor jox ko promoteur ñu am ay millions yu bëree bëri mën a fay mbëri ñu bëri yaa ngi dégg mais ay huit kilos yi nii wax nii bil ay promoteur bu ko fi njëkk essayé waaw kay moo la fan nga xam ne huit kilos neexul yow mbërum si da ngay préparé combat sa contact yow dem contact yi ni lay jàppale nga xool tafes géej bi day fees del donc kontaan ngay def préparation combat de mais day def rek action yi xool ni ñuy tàkk foofu di ëllëg mu neex day mal ni la lool sax moo dàq huit kilos moo xam ne tey entraînement mbër parce que daan entraînement mbër moo dàq lamb huit am na suñu ni man suñu rakk baa am junior ak ku ñuy wax kii waay o oh, kan lay bëral waay sama rakk am na combat baa am junior sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay am na combat yaa ngi dégg moom ak beneen mbër bu ne Dakar lay bëral jàppoon naa tur mais dama xaw a fàtte quoi xam nga mais day xool tey kooku combat bu ñëwee euh, ak mbër moomu tey ñu ne huit kilos la ah te booy bi Sénégal ñu bari xamagun ko yaa ngi dégg ah ki muy bëral encore euh, ñu bëri xamagun ko léegi bu ñu jëlee lamb boobu def ko huit kilos ah def ko pay per yaa ngi dégg te booy siw gu mat siw gi dëgg dëgg dëgg ba sa adduna xam ne ak siwgul su ñoom kon loolu mais promoteur yaa ngi gàllankoor promoteur boobu bokkul ak Balla Gaye mi taxaw Bombardier taxaw ñu lamb ji huit kilos la yaa ngi dégg Euh, sponsor bi ñëw uy ji uy promoteur bi état génn si keesam jàppale promoteur bi donc làmb ji kenn new fa ñaari bëri nekk fa arbitre bi ñu bëri ñoom ñaar donc Sonatel taxaw nit ñi fay jënd paas pour seetaan ko bu dee Balla Gaye la wala wala wala Eumeu Sène wala Gris Bordeaux wala Balla Gaye wala wala Baye Mandione mhm. nit ñi jaral nañ leen ko parce que ñooñu siiw nañu dëgg la waaye bu dee xale yi tamit pour jàpp foofu laay waxee yow nag ok foofu laay waxee yow foofu laay waxee yow am na mbër yoo xam am na ay grand combat yu bëri ay boo am ay grand combat mhm. da lay wóor tey da ngay dem ci sponsor bi taxaw naka diw ak diw laa bëgg mhm. yaa ngi dëgg mu ne non booy bi fourrière lay bëreel ku ne wax fourrière la sama rakk bi ah, bëreel waaw lay bëreel fourrière lay bëreel sama xel moo ci doo ñëw nii mhm. ku ne wax fourrière lay bëreel yaa ngi dëgg imagine tey jii yeneen booy amaat ay grand combat ci dëkk bi du jeex mais man mënoo jël yow lamb yëpp nga bëgg a def huit kilo imagine loolu man daal li may wax daal huit kilo bi na na kenn essayé ba benn promoteur essayé ba pare bu paree nag génn na am ngor nag génn ci média bi daan ni huit kilo bi def naa ko mais gagné naa ci bu ko defee yeneen promoteur ñëpp ay engagé wu def huit kilo bi mais fekkee na essayé gul man daa ma goon day sama sama xalaat bu ndaw na kenn essayé bu après bu réussiré ñu gérer loolu quoi mais fekkee na essayé gul moom dana dana dana euh, xalun tiim la rek kenn du bëgg a dugal sa loxo instant bii nii xam nga nañu président gestu sonn nañ trop Gris Bordeaux mooy président lutteur activité yi mm-hmm. mais tey daaw laata benn message tey bu ñu demee tey bi yàlla dogal tey président gesu mbër yi yëkkati dara jox leen yaa ngi dégg ndax tey dama wax naan dama ñun mbër yi bu ñu président joxee yaa ngi dégg am ku na ma yéen bi amul ñaan président dana war a jox far fos am ku ma wax loolu na ma lii du ñaan dana war a jox far fos yaa ngi dégg ma nekk bu ñu waree jox fos fos te yuuxu na bay bëgg a joxewul cent franc nag nu def mais kenn ku nekk na toog sa ruux gëm yàlla yaa ngi dégg xam ne avant président Macky Sall ne président ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi sant yàlla tey bu nekkoon président bu jógee fii yàlla bàyyi ñu fi ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi sant yàlla nëmbar mu nekk am sa sa ngor ak sa dignité toog sa kër jàpp sa ñaam lu ñoom ñu arrêté yaa ngi dégg buñ fi nekkati kaas dara wax nañ bay bëgg a dee nag gesuñu mais mais élection yaa ngi ñëw ku ne yaa yor sa carte nga sànni ku la neex mu jeex tag xamante ni moom la président tegoon ci table bi hmm. force covid 19 yéen jox leen ci dara dëgg la ma la wax mbëri nu yëkkati seen xaalis boog première corona bi xam naa deuxième corona bi ñoo xaw ma première bi mbëri nu yëkkati xaalis boole ay dons yu bari tekk ci loxo ministre Matar ba nekk ñun mbëri suñu participation yi nii si coronavirus bi pour pour jàppale askan wi mais pourquoi mbëri def loolu mais tey bi ñu demee tey ba deuxième vague ñëw xaw ma coronavirus duggaat si dëkk bi ñu génn ay ndimbal di ko jox nit ñi jox ñëpp bàyyi mbëri làmbay pourquoi dama président Gris Bordeaux mu may dégg yaa may dégg bu baax Gris bi dara nan toog am suñu dignité ñun ñëpp ku ne toog sa kër président bu nu joxee baax na bu ñu joxul baax na fii yàlla moo fi ne lu waay dund di ko lekk di ko naan wallaahi man loolu laa gis quoi vraiment. ok dëgg la dégg ngeen ko champion bi wax na loolu donc kàddoom yëpp nag boo xoolee ci mu ngi jëm ci wàllu président bi Macky Sall jàppale mbëri ah, c'est très hmm. important parce que man euh, tey soo demee fii la Thiaroye la la la la dëkk. Hmm. mais tey mbëri pour wane ay kilifa lañ te ñu ngi def ay jéego yu am solo ci seen i gox. tey mbër bu fi fayeeku million ñu ne fayeeku million <laughs> balaa semaine a jot nga jox askan <laughs> tey ay gox bi fu ne la nit di jógee ci làmb ji ci gox fa ñu dëkk di ñëw tey boo demee kër Balla Gaye même chose boo ñëwee kër Baye Mandione même chose boo ñëwee kër Gris Bordeaux mhm. kër goo mën a dem ci champion yi ngay gis mhm. chaque jour ñu ngi xëy di joxe di joxe di joxe parce que yaakaar dafa fort comme ni ko Baye Mandione donc kon mbër ñi dañu am solo ba ñu mm. ku leen jàppale da leen war a jàppale ku a jàppale parce que ñoom ci mm-hmm. seen bopp sax ay facteur de mm-hmm. développement mm-hmm. yaa ngi dégg ñoom mbër mi kese kese kese waxuma la nag staff beeg lamb yeeg préparation plus stade waaye mbër mi kese facteur de développement la kon président de la république du ngi lay ñaan nga jàppale mbër yi comme ni nga ko defee ci artistes yeeg ni nga ko defee ci rappeurs yeeg artistes yeeg xam nga ni nga ko defee ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mbër ñi dañ ko mérité dañoo mérité jàppale ndax ki nga xam ne mu ngi ci koñam bu xëyee waa koñ bi ñëpp ku ci nekk boo jaaxlee ndax turam fi mu toll di daw di ko wut si kooku war nañ koo jàppale ndax kooku mm. jàppale ko mooy jàppale Sénégal mais tey euh, mbër gis nañu benn vidéo temps yi passé mu muy muy ci internet bi mm. euh, ñu lay souhaité joyeux anniversaire mbër da nga gaaw a jooy de nu a sax parce que tey yaa ngi dégg maanaam euh, doomu adama lu bett daf lay man xam nga bi nekkee see kajaa foofu ah. yaa ngi dégg Balla Gaye woote fa maa ngi koy nuyu bu baax bu nit ku baax wax dëgg yàlla borom xol bu leer yàlla nag yàlla sama borom fay barki démb laa jékki sama portable rek mu envoyé benn vidéo ndeysaan mu nga màkkee saa bi xabu seenaa Mohamed mu envoyé mu vidéo di ma ñaanal billaay dama tiis sama nga envoyé Baye Mandione lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ma ñaanal ñëpp di yàlla nga am li nga si sa yaa xam loo bëgg yàlla suñu doon dafa ci barke si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom baax pire la nit ku baax la wallaahi mbëri làmb yi ñëpp ay borom baax lan mais Balla Gaye moom barku rasulillahi non nit nit non xol bu rafet la yor nit ku baax la ndax boo xoolee Balla Gaye boo xoolee bëri la bëgg ma man noonu laa mel amul mbër boo xam taxaw na mën a baax ma daa bañ ci non bu nu ma boolee maa ngi bëri nii bëri ku ne def lu ne sa morom yaa ngi dégg bëri daan mu jeex wala ñu daan la nga dem ñibbi mais bu weesoo loolu nag ay bëri daan ak yooyu noonu ay xeex kuloo yooyu demee côté ay signature contrat bu demee côté ba pare ñun bëri ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi bala Gaye new ma ko defaral de barko rasulillahi moo jékki-jékki rek vidéo bi ne dal sama dal sama téléphone may moom moo may ñaanal loolu sedd sama xol boobu sedd boo xamante ni moo ma gënal ay milliards ndax bu ko neexoon dem ma màkk yaa ngi de ne si boppam ba pare mu envoyé beneen vidéo ñaanal mbëri Sénégal yi billaahi wallaahi tallaahi ñëpp wallaahi amul benn problème incha allah mu ngi soom naa la ko envoyé léegi nii incha allah rabbi ndax man mi wax yow nii le 26 mais dama ko fàtte woon man. Ah. boo pare le 26 boobu ci la Balla Gaye woote pour ñu dem Almadi Seck Kacha yaa ngi dégg pour def fa réunion. pour mooy le message moo léegi pour lancer message pour président gëstuñu quoi ubbi làmba ji wala mu jàppale mbëri ci beneen domaine affaire yooyu quoi. Ah. léegi bu ñu toogee waxtaan nag waxtaan waxtaan ba affaire yi waaye jeex Malick Thiandoum moo jël micro bi daan ne hey na ngeen xam ne Baye Mandione miy toog tey la adversaire am rek gaa yi naa ko rek ma ne yii def nii jëkki-jëkki rek sëñ Mbacke Ndiaye yàlla na ko yàlla sama borom fay bu baax a koroon laay doog a toog ak moom ah. moo génn xaalis si poosam rek jox daan eh dama jënd goto bi dagg fii nan nga feete fii benn yoon wala lépp jooni jooni la foofu ñu jox femme bi femme bi ne defar goto bind sama tur affaire yooyu ñëw teg mais man li ma jooyloo mooy hmm. bi euh, Malick Thiandoum ne nii ba ma joon tey la a am avant mu daaneel gars yi pas yuuxoondoo ba yëpp tàkku si ginnaaw yuuxu wala commencé wañ Happy birthday to you. nag génne seen i portable nag tiim ma ñoom ñu man dama gesu gis gaa yi nii <laughs> affaire bi waaye doy waar quoi wallahi non jour boobu non pi sipir baaxul na gaa yi di bàyyi ay sipir sipir baaxul quoi ndax xamala moo tax aduna lépp la bitta man la ah, man tollaa ma boo xamante ne ba ni muy jeexee wallahi mënatuma tey samay rongoñ damay dëgëral ba sonn jéem a gëm ba jaayante pour samay rongoñ bi ngay génn mais day génn du ma ci man dara kon nag man bu njëkkoon mënoon oo di ma laaj mm-hmm. naa naan diw diw diw dootuma ko defati ba kër suuf billaahi bu ma laajitee mbëri ku sa xarit dama naa mbëri yëpp samay xarit lan ndax li ma defal koroog te te bi may jooy man dégg naa ñu jooy si ginnaaw soo ñu ëpp barke rasulillahi journaliste yi ñoo ma ko wax après xam nga muur nañ ñi am na ñoo xam te si adversaire lan Gris Bordeaux bëri nan maag moom Moussa Diop bëri nan maag moom Balla Gaye bëri na ak Bombardier ba ñuy waaj a bëriwaat te ñoom ñaar seize bi Bombardier toogoon bi mu jugee Balla Gaye moo ki toog Gris Bordeaux bëri na ak Balla Gaye seize bi Gris Bordeaux toog bi mu jugee Balla Gaye moo ki toog yaa ngi dégg ak yeneen ak ñoom booy Niang xam nga ñoom Papa Sow ñoom Gora Sock Moussa Dioum champion yëpp ñoom kii Tafa Mbër ay maanaam ko wul ay Alioune Seye 2 maanaam mbëri Sénégal yëpp ay ay kon ay ñoom ñëpp ay ambulance ñëpp a ngi foon wax dëgg yàlla xam nga ñu ay nit ñu baax ñoo xamante ne yàlla na yàlla sama borom fay ci barki Seydina Mohamed li ma souhaité xabab de boobu ñoom defal ay teraanga bër mu nekk yàlla def ko minti milliards mu yóbbu si njabootam ci barki Seydina Mohamed mbëri amul combat yàlla may leen combat ñu am combat nag yàlla jëlee fi feebar bi ban bëri seen i combat ba joxal la yéen avance ci barki Seydina Mohamed. Ah, waaw bàyyi sa sa dernier moo très rapidement. parce que quand euh, jotaay bi am na solo xaw na yàgg tuuti. te oh. da nga bàyyi say téye yëpp. Mm-hmm. Euh, bi ñu la woowee nga ne incha allah samedi dañ koy def. nga hmm. amoon ay yeneen yi mbir yi nga ñaari xew yëpp da nga waroon bàyyi ñaari xew da nga ko bàyyi hmm. ngir dalal ñu donc loolu lu fort la et puis loolu dafay wane rek hmm. kaddu gi nga xam ne respecté nga ko et puis sa nituwaay aussi donc loolu c'est très ko gisee ni ko Sénégal xamee ci mbaax ci yar ci woyof ci dëggu noonu la mel ama di gërëm koo xamante ni si joma jour anniversaire boobu noonu gars yi defal ma teraanga mbëri dafa am benn kilifa gu mag encore ci même jour bi oo ma ma ñëw biroom mu yëkkati terrain may ma ci sama jour adversaire bi encore ma maa la ko jox cadeau muy basiru Ka ah. wax dëgg yàlla dëkk tuwaan pël xam ma du nit ku baax koo xamante ni mën naa wax ni euh, année bi lim ci may nit ci terrain war na ëpp ay ah, lim mayee xool lim mayee si terrain lim mayee si terrain wallaahi instant bi ma wax yow nii mm-hmm. ëpp na cinquante terrain yu may Bassirou Ka xoolal ñoom bëri génn wàllu mbëri mel leen terrain artistes yi génn wàllu artistes yëpp yaa ngi dëgg comme yi ñëpp may leen ay terrain ba ci ñi nga xamante ni sax yaa ngi dégg ay tëkkat Seydina Mohamed lan may leen ay terrain muy taalibe seen Cheikh Béthio Thioune yàlla na ko yàlla sama borom teeru yërmande dem dëkk ak saa jëne yu taas nu ci barkeem Cheikh Béthio xam muy ku bëgg sëñ Saliou Mbacke ak njabootam Bassirou Ka mais nit ku baax la yàlla na ko yàlla aar yàlla sàmm ko dinaa la yóbbu ba ci moom bu soob yàlla mooy la tere incha allah ndax lii may wax yow nii dina ko seetaan te bu ko seetaanee dana bàyyi ma gën andil ma ku baax la yàlla na ko yàlla aar ci barki Seydina Mohamed lu mu def tey boo léegi yàlla na ko yàlla jox lu ko ëpp may gërëm suma papa Tayrou Sarr waaw mooy suma patron mooy suma kilifa mm. mooy suma waajur wallahi bi sama ñaari waajur avant ñu dem waajur la woon ci man sama papa suma yaay génne àdduna mu gën maa jël boole ma ci boppam boole ma ci famem kon tayru yàlla na ko yàlla sama borom aar yàlla sàmm ko ak njabootam soxnaam mooy suma yaay ma dem ci yàlla na ko yàlla sama borom aar soxna Jaynaba yaa ngi dégg yàlla na yàlla sama borom barkeel njabootu tayru saar yàlla ubbil ko bunti xéewal yëpp yaa ngi dégg lépp lu mu mbébét lu nekk yàlla na ko yàlla àggale ci barke Seydina Mohamed kooku su ma si moom xol laay waxee ndax dafa am yërmande tayur dafa baax dafa tabe bëri na ay kilifa yu bari na Sénégal yor oto moo leen ko jox te doo dégg wax ko bëri na ay kilifa yu bëri yu am kër moo leen ko may Sénégal fi doo dégg wax ko day def nag ne ceel la jàpp ñaamborom kon tayuru saar yàlla na yàlla sama borom aar yàlla sàmb la Baafa maa ngi lay ziar maa ngi lay bége bu baax a baax yàlla na yàlla aar ci barke Seydina Mohamed may gërëm Abdoulaye Diop monsieur le maire ginnaaw raay yàlla na ko yàlla sama borom aar kooku suma nit la suma lépp la monsieur le maire Ndiaga Niang Mamadou Diagne Assane sama mag yi am fay ñoom ñëpp maanaam fay may gërëm ñëpp quoi ku lim da ngay juum mm-hmm. xam mm-hmm. may kontaan na ci déplacement bi nga def ñëw caaree seesima mm-hmm. yàlla la yàlla sama borom fay seen sud bi bokk ci sud yi gën a kawe ci barki Seyna Mohamed kontaan naa trop quoi vraiment boo ñaanee rek mm. yàlla da koy def ndax sa xol bi dara nekku ci te yàlla moom li mu gën a bëgg mooy xol mm. booy màkkaanaam foofu mooy bërëbam bi ñu ko laajee def ne mm-hmm. xajul asamaan juróom ñaar suuf waaye xaj na ci joom xolu xolu joo xolu mm-hmm. doomu aadama walaay dëgg li nga xam ne moo ko te yow sa xol mm-hmm. doomu sa xol bi dafa Sénégal lépp ko seet. àdduna am solo àdduna am solo aussi di ñaanal di la ñaanal jàmm sa carrière allah li nga bëgg ci réew mi waxuma la sax ci lam amiin yaa rabbal aalamiin li nga bëgg ci réew mi yéene bi nga yéene ci réew mi amiin amiin yàlla na ko yàlla def ñu bokk lépp incha allah ñu bokk ah, maa la ko wax fii mm. na ko kooku du waxantu leer laa la wax incha allah da nga am bu soobee yàlla ok jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan ci seen télé télé ci poste maanaam Senclic TV